mujj mooy ci neen rek lay mujj te foofu la mujj te loolu la ca euh, yoon mujj saxal ñu sant ci yàlla bu baax depuis nag mu jógee ci loola alhamdulilah imaam daanaka rek mën nañoo wax di mbir moom def ko yaakaar naa ne euh, barab yooyu la mu fa doon dund moom waxal na ko boppam euh, ku dugg ci YouTube bi baa nga dugg ci réseaux yi yaakaar loo ci bëgg a dégg rek di ko déggal sa bopp jërul ñun ñu di ci dugg di wax waaye wéradéem googu ala kulli xaal daanaka rek moo ko topp ba ni mu demee barzaq moom euh, imaam Ali Badara di sant yàlla nag bu baax ndax mënoon nañoo yaroo ci ay euh, ay tànkam yaroo ci keppaaram noppi am lu ñu métti ci moom wax dëgg yàlla ba fii ñu nekk ci kër Moussa Gueye ñett yoon ñëw na ko fi ci sunu bisi conférence yoo xamante ni bu ci nekk dëgguma sax sama tànk pour dem kaw wax téléphone rek la ñuy jokk mu ne ma bu soobee yàlla daa ñëw balaa waxtu wa dinaa ko gis ci dëkk dana ñëw ci conférence bi ñëw def fi waxtaan delluwaat wax dëgg yàlla euh, bi ma mujjee déggante moom jàpp naa ni su matee weer ci lay yem fekk booba ñu amoon benn mbooloo boo xamante ni waroon nañoo dem seeti ko ñu délégué woon ma ni ma nag comme yow yaa ko gën a jege ci ñun na nga jox ko ak moom ñu jim fa dem wax dëgg yàlla ma woo ko boobu mu ci tawat ji mu ni ma ñëw leen ndax lii dox nii man loolu laa doon dox comme yéen ñi ngi nekkoon ci daara ji ma leen doon yar ci daara ji am ngeen xalaat bi ba di ko dox alhamdulilahi rabbil alamin ak si leen ci laawoo Ablaye Ndaw ak doomam Moustapha Ndaw ñu ni ma góor gi tawat na dëgg yàlla tawat na ñu ni baax na ba bis bi ñu jàpp pour dem dem nañ ba àgg jaari wax dëgg yàlla continuer dem Mbàkke dox fa ay jéego ay yitte war a départ ñu woo la ñu ne ñu wax dëgg yàlla fi mu nekk nii moom bu ngeen ñëwee du ngeen ko gis jàpp mu ñi di ngeen ko gis euh, waaye bu ngeen ak si fekk fi waa daara ñu ni comme yàlla dogal na wérut te bu ñu àggee duñ ko gis it nañu dëpp ba beneen yoon wax dëgg yàlla kàddu yi lañ mujjee wax ak imaam te loola doon liggéey bu lislaam boo xamante ni mooy lu benn le julliti jullit jullit yi ci biir réew mi yépp ndax moom liggéeyam moo doon loolu imaam boo toogaan ci kanamam daanaka muy wax dootoo xam lu mu doon mission moo doon jullit ñi nañu bewaloo ba noppi suñu booloo ba joxante loxo am genn kilifa lépp lu ñu bëgg ci réew mi dinañ ko doxal muy ca façon ba mu doon waxee nag ak la mu bëggoon mu taxam ci réew mi mooy ak justice maanu ci am ci réew mi yamale ñépp ki am ak ki ñàkk góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp bokk yam ci loi ba du ñu jalgati àq kenn du ñu teg kenn lu yoon baa ñuy añ xañ kenn àq loola daan wax ni bala moo mën a am ci suñu réew mii faaw jullit ñëpp joxante loxo ba am genn kilifa bu noppi liggéey boobu nag ci la ñu yar fépp foo xamante ni dongam imaam nekk na fii ci réew mi ak raison bu mën a nekk euh, yaakaar naa ne ñun ñu ngi ci umpale bëriwut dem am na waaye koo ci dox ba dem ci daaraam fekk ko euh, nun ni ñu nekk fii ci kër Moussa rek la fa nekk mooy di ñaw doon ab puso di boole di di taqale waaye nekk ci jàng ak jàngale ak liggéey amul benn dongaam boo xamante ni di nga ko fekk ci réew mii te nekkut nit koo xamante ni liggéeykat amul ñi nga ñi ma ci xam ñépp boroom yitte lañ ci liggéey te yow na ay yitte yu kawe eh, daan na wax ni wax dëgg yàlla ku leen xeeb seen bopp fu ngeen gis nit ci am am te liggéey may ko ko séentu leen fa seen bopp te dox ay jéego jëm ci fu ngeen gis nit ci xam-xamam di ko naw eh, def leen ay pexe ak yi jéego te wuti ko fa te dem wuti ko yooyu wax dëgg yàlla ñu ko doon dénk daan ñu dénki daara ji yellu kenn jóge fii ci biir daara ji dund dangaa sampi daara ndax lu leer li ngeen jële ci biir daara ji am ngeen àq pour àggee ko ci biir askan bi am ngeen àq pour àggee ko ci biir askan bi kon bu kenn jógee ci yéen fii dem di toog alhamdulilah même ñi ci xam ñu nekk ñu néew ñoo xamante ni jàngalewu koo ci dem palaasam fekk ko mission bi imaam yoroon doon ko wax doon ko wax ci kaw minbar yi di ko wax ci kaw conférence di ko wax ci ay laay am yépp fu mu mën a nekk di wax discours boobu ngay fekk mu amee ko yërmaande ji nekkoon ci imaam da ko sotti woon suñu kaw ba mën sëkk waaye dal gi yaatu gi gi nangoo liggéey bëgg xam bëgg njaboot bëgg say bokk bëgg say bokk jullit imaam ko sotti ci mboolem dongo bu biiroon amul kenn koo xamante ni jaar nga ci daara ji lu dul jikko yooyu yor na nekk nekk na ci nga di ko doxe di ko waxe di ko jëfe léeg-léeg sax ndeysaan macha allah genn góor dañuy waxtaan benn jamono mu toog ñu waxtaan bam mu yàgg mu ni ma wax dëgg yàlla daal xam naa ni man daal euh, sa cheikh yow ku toogut ak yow du la xam ma ne ah déedéet neel ku toogut ak imaam du ko xam man mission imaam laa yor waaw nun ñi toog ci ren ron koy paaram ne yaru yaru ci ay loxoom eh, nañu ko gisee woon mu nekk nii doon dund ak ñun yarañu ca loolu rek lañ mën a def mënuñoo def leneen parce que rus nañu jomm nañu di nekk ci barab imaam fekk ñu fi ñu naan doxu doxu ñu jaaru yar loolu laa ko li xaal wax dëgg yàlla nekk na loo xamante ni lu rëy la ci ñun imaam daal yal yàlla yërëm ko yal na yàlla taxawu ko te yërëm ko te jéggal ko ak njabootam yàlla yàlla taxawu leen wax dëgg yàlla njabootam gépp macha allahu taala ay borom xam-xam ku taxawu diine nag yal na yàlla sàmm daara ji sàmmin woo xamante ni macha allahu taala lu gën a kawe lam ci doon jot te am nañ ci yaakaar bu baax ndax bàyyi na fi ay ndono yu koy continuer bàyyi na fi ay ndono yu koy continuer mu nekk daara joo xamante ni nag daara ji ëpp ko dox daara ji ba fii may wax ak moo boo demee euh, fu nit toll ci sa am-am pour sa doom jàng fa mën na faa fu sa fu ci am-am pour sa doom jàng fa mën naa jàng ci biir daara ji bu dee internat bi mu ngi fa di dox ñi nga xamante ni moom la bëgg bu dee daara yalwaan bi mu ngi fa bu dee daara joo xam ne ngay joxe sa ndékk ci biir daara ji sa añ ñu di la toggaale ci biir mu ngi fa lépp ci biir. kilifteefam la nekk euh, bokk li ñu gën a yéem ci moom bokk na ci boo demee tey jii ci daara ja sëñ bi macha allahu taala école française bi mu ci digg daara ji lu yaakaar naa ne dem ci kër kilifa diine gis ko fa sax yombut ndax moom dafa teeloon a xam ni euh, réew mi ñi koy defar ëllëg faaw ñu jàng arab faaw ñu jàng français maîtriser ko. bu ëllëgee ñu mën a wàcc ci terrain bi mën a wax askan bi loolu taxoon na wax dëgg yàlla école ba fa mu jaar ba samp fa xëy na xajul ci ab émission waaye nag buñ la ko waxee rek nga xam ne lu yéeme la tey jii école bi mu ngi uuf jumaa ji nga xamante ni ci la imaam doon taxaw di xutba uuf itamit li nga xamante ni moom mooy daara ji nga xamante ni bari na dongo yoo xamante ni ñu ngi ci biir école français boobu di jàng ci école français bi boole ko ak daara ji alhamdulilah di mokkal quran eh, di jàng seen xam-xam di jàng France def lépp moo tax it wax dëgg yàlla ay dongaam yëpp eh, xalaat boobu dañ ko amee yor ab dong muy jàng français terewut ñu mokkalal ko alquran ndax dañoo gis mu def ko te moo ñu yor def loola ci réew mi fépp nag foo dem fu imaam yor ab dongaam bu fa yor daara jàng dong mu yor muy jàng français muy jàng franco arabe mu nekk ci école arabe kese lu mu ci mën a nekk boole koog daara ji bu dajeeg dongo bi maam dana mokkal xuraan incha allah bu ko yàlla war sëgale loolu nag liggéey la bu réy boo xamante ni jàpp naa ne réew mi am nañ ameel nañ ko njukkal réew mépp ameel nañu njukkal imaam Alioune Badara Ndao àdduna bépp amal nañ imaam Alioune Badara Ndao njukkal ndax discours am jàpp naa ne macha allahu taala néew na ko ci jariñoo ci réew mi ak niveau boo mën a toll nag bis jàpp naa ne déglu nga ci imaam loo xamante ni lu yees lay doon ci yow loo xam ne jàppoo woon ni imaam dana waxe nii ndax ni mu toogee woon comme imaam moom wax dëgg yàlla néew naa gis ci biir réew mi imaam bu ni mel di tooge noonu di waxe noonu euh, ànd ak nag dëddu àdduna gi ak doylu gi euh, te lu ne mu mënoon ko wax dëgg yàlla lu ne manoon na ko bu dee buntu alal rek pour liggéey ko gisuma ko ko ci man bu doon ñeneen ñu jógee ci biti ngir na man koo financé lu dul jeex teg ay xaalisam ci biir ci loxoom ba ci biir réew mi jàpp naa bu doon nangu loola tey jii ku dem ci këram di nga gis ay étage yu kawe kawe danga fa gis waaye maal asaf moom liggéeyam moo doon ëllëg yow man loolu rek moo doon liggéeyam mooy liggéey am ngër maa ne suñu borom subhanahu wa taala day dem àjjana ba ni mu génne àdduna yàlla yàlla defal ko àjjana yàlla yàlla yërëm ko te jéggal ko wax dëgg yàlla lu rëy dañ na ci ñun lu rëy dañ na ci ñun lu diis dañ na ci ñun euh, wax dëgg yàlla du gaaw a génn ci suñu xol mukk jàpp suñu xelet du ci gaaw a génn ndax fi mu tolloon ci ay dongaam moo tax fi mu tolloon ci ay dongaan moo tax ñu nit fi ñu tolloon ci moom sori lool alaa kulli xaal ñu lu dul tëjee suñuy kàddu sant waa Kër Moussa Info yëpp sant mboolem waa Kër Moussa yëpp ndax wax dëgg yàlla saa su fi ñëwee rek dëkk bi yëpp génn nañu déglu si ko rawatina yoon wi fi mujj nga xamante ni macha allahu taala fekk na mu génn ci natt bi euh, wax dëgg yàlla tund jandeer yëpp. bi ñu yégee ni day ñëw fii bari nañu fi déplacé wu ñëw ngir gis ko xanti woo ngir xam kan mooy imaam Ali Badara wax dëgg yàlla yooyu yëpp ay ngëneel la yoo xamante ni eh, yàlla yàlla fay ko ko kon daal ñu ni sant euh, mbooleem waa dëkk bi yëpp di sant euh, waa Kër Moussa Efo di sant mboolem tund jandeer yëpp waaye xaasatan di sant nag euh, bokki daara ji yëpp bàyyi mu ñu kenn wax dëgg yàlla gone yi ci daara ji ñu ngi leen di sant leen gërëm ñu ki ci gën a nekk ndaw ba ci kër gën a nekk mag wax dëgg yàlla ñu ngi jiima dund ak ñoom na imaam doon dund ak ñun di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dimbali ñu ci euh, yàlla musal ñu ci seytaane ay pexeem waaye musal ñu ci bakken ak euh, lépp lu ñaaw yàlla yàlla musal ñu ci yàlla yàlla teg ñu ci njub yàlla teg ñu ci dëgg ba ñu fekk ko ñu bokk ak euh, nekk biir àjjana na suñu borom subhanahu wa yàlla yàlla ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah thank you